ajaratu ndey Adama Ndiaye population Ndangaan ñoo taxaw fii ci wetu stade bi tey di wax suñuy jafe-jafe dugg ngeen filmer ngeen gis ngeen suñ kër yi gis ngeen suñ néeg yi gis ngeen ëtt yi gis ngeen mbedd yi niñ mel dama koy wax toujours nag nee naa leen autorités yi fii dugg ak homme politique yi ñun benn problème la ñu am ñun ñii ci côté stade bi amuñu problème mu ndoxu yàlla problème bi ñu am problème mu lan la ndoxu stade bi lu jóge Mérina ba Jalañ ba lew na day stagné si biir stade bi su fi dajaloo dugg ci suñu biir néeg ak suñu biir kër yi depuis Baba Ndiaye ne fi nag nekk conseil départemental di doomu gox bi bind nañ bindati bindati loolu yàlla defu ko Youssou Bensanou nag nee nañ problème yi stade bi moom moo ko yor xamuñu ko nag te nii ñu def ba au journaliste yi bay wax suñuy jafe-jafe ak suñuy coono moom la ñuy wax ci Youssouf ndax gisuñu ko mais dégg nañ ne am d'état la ku am yermane la ku xam doomu aadama la lii ñuy wax fi tamit di len ko wax pour ngeen lancer ñu message bi mu dem suñu ne recevoir mu recevoir ñu ndax sonn nañ sonn bo xamne ku nekk xam na ne senegal metti na metti go xamne ne fi ne ni lek ak naan problème la waxuma ngay defar sa kër li ñu am nang mu tuuta kës neew ak suñu doole ñu koy defale fi ñu am stade bi moo sonal te amon na année bo xamne ne bi fi chinois ñëw di defar dama len ko poser bima len ko poser dañu dag rek genre canalisation mu génn ci miiru stade bi rek jaar ci égo yi fi mu ne nii am nañu égo luñ ñu dimbalee yomb na canalisation yombul mais nañ ñu may ñu daggal ñu rigol boo xam ne ndox mi day génn jaar si canal yi dem su ndoxu yàlla bi ñëwee ñu ne si jàmm nekk ak suñuy njaboot loolu lañ doon wax xuloowuñu xeexuñu waaw li ñu yàqule bagage yi ndax xam ngeen ne lii ngeen filmé ku dajale ba am sa lal am say ceeb am say xott ci sa néeg mu tooy bay tëmb te dégg ngeen bi fi ministre bi jaaree keroog di dem inondation bi ndangaan si la bokk li ci boole nag du dara stade bi la kenn ñu fi dëkkuwaay kenn ñoo jege dëkk bi stade bi moo ñu solal nañ ñu dimbale ci stade bi réfection bi moo yokk ay ndax dañ koo xawoon a def genre kanaal def fi ay ay mbalit mu jóg bi Sinoa yi commencé ñu raser yëpp ndox mi gën a ñëw di dugg. Ilimane Diouf maa yore maa yore juma bii léegi xam ne moom la ñu boobu même gisee lu ñu def nii sax. defoon ko canal saa moo genoon ndox bi yog jógee lew na jóge ba Medina Baye fii lay jaar suñu kër dafa fees del gisoo ndox bi su mënoon ko am ku ñu dimbale ñu sant yàlla wax nañu ba sonn guddi ak bëccëg wallaay dañu dimbale rek ndox bi daal fii suñu kër yëpp dafay fees gisoo yëpp di koy ball fii nga gis ni sax li ñu def ni sa amuñ ji suñ ko defoon canal de ndox bi yëpp di dem bu dem géej gis nga fale même ndox bi su feesee nii pour nga jaafi problème lay doon même liggéey bi ñu ko liggéey sax moom ndox bi dafay taa foofu doo mën a dem jiite mala dem waaye ndox bi fay lay taa ndox bi jógee côté yëpp fii lay jaar suñu mënoon am ku ñu dimbale daal wala li war a suul ñu ñu ñu sant leen lii laa mun a lancé ngeen wax ki nga xam ne moo yore affaire bi ñu ñëw dimbalu ñu fii yëpp a gis ne kër yëpp am problème ñun sax li tabax bi ñu tabax sax ba ñu may jàmm waaye su guddi jotoon ndox bi dafa doon bi suñu lal yi waye niñ ko tay ni sa waye teerul estab bi da fess del ndox bi jógee fële fofu lay ñew gis nga fi yeb ay ndox la ni ñu defal nu canal bo xamne dana mëna dem be ndox bi mëna jall jàll di dem lañu soxla. manam damay dem julli ji ah, jumaa baa ngi nii suñ noo jotee moom julli ji fii ngi bo rasu di di di dox ndank ba ag wa fi dal mom mbiri mbiri canal moo ñu wara ki fi dal taw mo ñu sonnal. ma ngi tuddu Khady dëkk fi ci Ndangaan di présidente femme fi ci Ndangaan. ndax ñun Ndangaan dé nañ dundatuñ sonn nañ daw nañ dama ko wax fii ay politiciens yu fi jaaroon ne leen ndàngaan problème bi du ceew du diw du lekk problème mu ndox la te coono ndàngaan bépp ndoxu ndàngaan bi yëpp stade la ñun ndàngaan bu nekkul woon ak stade bi duñu gis ndox tey koo fi dugg néegam am na ñoo xam ne toggatuñu añ bala ñooy togg dañuy teg gongu jël fourneau bi teg si soog a mën a togg añ ngir problème mu stade bi ñii seeni i néeg yàqu na ñii seeni lal yàqu na ñii seen i armoire yàqu na stade bi ren bi ñu ko defaree ñun si la ñu am coono bi ndax yaakaar naa kenn mosul dégg Ndangaan mu taxaw di jooy problème mu ndox ren defaru stade bi coono bu ñu dal rek moom moo ñu ko indil ñun nag li ñuy wax mooy xuloowuñu xeexuñu dañuy ñaan autorité yi ñuy nekk Kaolack ñi nga xam ne tey ñoo ñu mën a jàppale ci problème mu bi ñu ñëw jàppale ñu jàppale ñu ci canalisation ci biir stade bi mu uti géej ñun Ndangaan dañu bëri ay problème ñuy au maire Serigne Mbuub déposé nañ problème mu daan depuis ay mois mat na 6 mois chef de quartier dem na adjoint chef de quartier dem na mënul fexe ba problème boobu réglé fii ma taxaw chaque jour soog am fi si ñu xale yi kenn ñemeetul yónni sa xale chaque jour ñu mbëkk sa xale ñu nekk yoonu hôpital ñu boole nag inondation néeg bu yàqu lal yu yàqu ba pare boole kook chaque jour nga dem hôpital régional nañu ñu dimbale dañoo sonn ku ne xam na ni jamono neexul te doole amul ñun ñaanuñ lenn nañ ñu dimbale nañ ñu dimbale ñoom ñu ñu ëpp doole ngir yàlla ñu ñëw jàppale ñu ci ndàngaan may ñu canalisation ci stade bi Serigne Mbuub lu mu gaaw nañu dimbale ndax yaakaar naa ba muy ut kaw ci digg ndàngaan bi la doon aw kon tey bu ñu amee jafe-jafe suñuy doom di damm suñuy doom seeni bopp di toj suñuy doom di dee ci tali bi war nañoo taxaw defal ñu ay nduudaan ñu ngi leen di woon ak ci njekk nañu ndax ñun ay citoyen ay Kaolack lañ te ku ne xam na ni politique boo ci génnee ndàngaan politique amatul kuy wax politique ndàngaan ngay njëkk a kon nañu ñu ñu jàppale nañu ñu dimbale